ki démb damay xool ci dalilu xaar téereb maamam boobu sëriñ baara Cheikh Ahmad Lamine ne bi sëñ Tuubaa di tàggatoo di dem dafa am ci soxna yi sëñ bi ko ne ko ndax dangay ngay ànd ak sa bàyyi mu ne ko fu mu jëm ne mu dumóoyu ma wan ma gannaaw mu dem yanu liggéeyam boobu liggéey ko ba mu jeex kenn fekku ci sëñ Tuubaa ñëpp a xaar ko pay gi ñew yaatu ñu faté ko def njabotam gi morom di len keul keulé di len tras di len kurwaa wax ñu ko def len ni morom ngir aduna té wat na ko ci yalla kay doon président Amérique té bañ señ Touba dé ko gën kay boole yilif la Salman silif ca Makka boole ko doon président Amérique boole walé ca fu gëna reuy ñu na la def ko ta ba señ Touba nga lank kon aduna lu wara a tax a señ Touba ko njabotam amut naa féqi di weesu wut sëñ Tuubaa laa gëm waaye lim fi ba gëwuma ko loolu du dëgg sëñ Tuubaa lim fi ba mooy dëgg jenn jumaa la fi bàyyi 1927 tey ji téeméeri jumaa ak juróom benn fukk ak ñaar mi ngi fi di julli ca Tuubaa laa la wax lam de li ko yàlla sédd la sédd ku ne da woo fii nit léegi mun a sëy baa nga woo nit mun a jóob baa nga woo nit mun a njaay mu ne su koo weesu koo woo mu wuyoo saw sant boo ko liggéeyloo mu dem boo ko santee mu dem kon nun noo war a taxaw ci ku jëm ci sëñ Touba sëñ Touba da day tagg yonente bi yàgg Musaylimatul Kazzaab sëñ bi ñiñ ñi ko ngir melo yu mel mu ne dal la Musaylima ngi na jaara Musaylima torox na keroog ba mu defee yonente bi moroom taxaw ci digg mbooloo càpp ndaay tuur ndox faj aajo mag ñi ne ko yow de Mbàkke xamee sut sa xalima di wax lu mel nii mu ne ku xamu tegg ni sama sang ba doo xam